waaw euh, maladie bi dañoo gis ne dafa am ay inconvénients ay conséquences yu bëri yu mu jur et parmi ceux mën nañ compter euh, rupture de sang bi am ci Sénégal yëpp jëlee ko CNTS ba banques yi nekk ci régional yi moo tax euh, SLAM puisque ñun ñëpp ñibbisi nañ ci dëkk bi SLAM nag on a organisé dañoo décidé organiser des journées de don de sang lundi ba mercredi donc juste avant le Ramadan pour que ñu mën a voilà pour que ñu mën a sensibiliser woo nit ñi ñu ñëw maye sang voilà loolu la ñuy loolu la ñu dafagum pour l' instant. mu ngi amee banque de sang de Saint-Louis bi nekk euh, wetu ancien SDE bon vu le contexte où nous mooy pandémie bi bi ñu nekk nii donc euh, dañoo jënd jënd ay masques yu bëri jënd ay gel comme ça kuy dugg te xam nga ne ñëw nga àndaale woo masque dañ lay may benn masque ñu defaral la gel. et même euh, les gens aussi distanciation sociale bi tamit respecté nañ ko donc euh, à chaque fois au minimum il y a un mètre de distance entre eux donc on a organisé ça de telle sorte que vraiment ñu éviter rassemblement bi c'est pour ça même ñu def ko en trois jours comme ça chaque jour on on essaie de prendre un lot après pour attendre l'autre jour pour ñu continuer juste pour éviter éviter rassemblement euh, lundi le lundi par exemple on a eu 32 poches. Et aujourd'hui, on est le mercredi. On a vu que vraiment, pareil, mais on a eu beaucoup plus de poches. Donc, on avait espéré chaque jour 20 euh, poches, mais les gens ont dépassé l'objectif. Donc, on peut dire par là que l'information est déjà euh, Vraiment, c'est vrai, journée est la pour nous organiser et que nous avons dugg le Ramadan mais ma ngi à le askan bi Ramadan bi su vraiment nit joxe sang chaque quatre mois ñu joxe donc euh, voilà parce que lu leen jëriñ la suba di jëriñ seen mbokk di jëriñ askan wi tamit donc du euh, yamul rek ci journée yi journée yi dañ ko def pour mun a woo nit ñi rasan euh, pour nit ñi mun a ñëw en masse mais journée yi suñu jeexee suñu jàllee ci weeru koor vraiment nañu nit ñëw parce que d'habitude weeru koor suy jegee si dañuy am benn stock bu baax pour mën a continuer wer koor gi mais dañu gis ne léegi wer koor gaa ngi jege si on est à je peux dire à quelques heures ou bien à quelques à à à vingt à quelques heures du Ramadan mais ñoo ngi nii banques yi dañoo vide synthèse et tout donc nit ñi vraiment ñu ngi leen di ñaax nañ ñëw après koor gi nañ ñëw région bu ñu nekk am na banque de sang bu fa nekk donc nga dem ba foofu joxe sang après nga dem y a aucun risque y a y a aucune amul benn risque amul voilà amul benn danger da ngay ñëw joxe nga dem ñibbi mel ni comme si du yow Merci.